su ma duggee ki nga xamante ni mooy caat mooy waa benn tali biscuiterie ak fan. ñaari tali tali ak waa NGB ah. ak waa NGB ñooy ànd ak moom tey ma dalal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom seen carrière bëgg waxtaan ak ñoom nag seen diggante ñoom ñaar ndax nekk na komba boo xamante ni nii combat bu ñor la nekk na combat boo xamante ni amateur yi bëgg nañ ko. ñoom tamit bañuñu mais man problème bi mooy damaa xamul problème bi fan la tegee damaa xamul ci double moteur la wala damaa xamul ci nga xamante mooy caat booy bàmba la balaa loolu nag dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu doog a wéy waxtaan wi double lay fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di leen nuyu di leen siyaar xam di nuyu kilifa diine yi di nuyu waa àdduna xam nga di sant sama sëriñ maam Thierno Mbacke imaam bu baax a baax njaboot Cheikh Modou Kara Mbacke bi yëpp waaw di sant kilifa diina yëpp daal waaw di nuyu waa àdduna du nuyu sama waa koñ waa Rebeuss fas Fass Colobane Gueule Tapée Niayes Thioker jeune bi yëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp di leen siyaar bu baax a baax. Hmm. doo nuyu kii. di dalal jàmm caat baax a baax champion bi. caat hmm. hmm. nuyu naa la. waaw salaamaaleykum sama gars yi maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp làmb yëpp di nuyu waa wasaare làmb di ziar ñu ngi teew di nuyu Double di ziar ñëpp di jiital si nuyoo bi noo foog séeréer mi naanu ngonu ngonu fay sima ngonu képp def noo seede caate ziyaaram jaajafalam sargalam coom yeegu waayof rawatinaan duna la gën ma mais ziyaara fopp xam di ziyaar di nuyu ñi ma ñi ma ñi dëkkal waa ñaatal NGB bi ñu kenn képp kuy safoo caat rek mu lay ziyaare di ziyaare sama wasila di ziyaare sama wasila Sëñ Sidi maa ngi koy ziare bu baax a baax a baax Sëñ Sidi Amet borom Tiwaawan maa ngi koy ziare di ziare yëpp xam nga di ziare axlu laam képp kuy bëggee caar di caar mu lay ziare di ziare kilifa diine yëpp di ñaanal Sénégal na fi jàmm yàgg di ñaanal suñu lion tam match bi ñu jëm yal nañu ko yàlla yal nañu yàlla may ndam tamit. Mhm. kañ nga jógee Dionewar. Dionewar oh, maa ngi fa jógee ma xool samedi. samedi waaw. ana waa Jono ñu ngi si jàmm bu baax. yow moom daanaka boo bëree daw dem. Mhm. soo bëreewul yaa ngi foofu toog. Hmm. non du question bëree daw daw dem sax parce que man boo xoolee boo xoolee Dionewar laa am. Dionewar mhm. laa yaakaar te Dionewar laa juddoo te ñoo ma tete ba ma egg si ba fii bien vrai que heure bu ñu amee combat dañuy ñëw féete fii entraîné mais bu ñu bëree ba dem dañuy dem dellu si suñu mbokk continuer suñu activité suñu njaboot loolu moo tax mais saa su ne bu ñu demee Dionewar rek. xel ya xalaat yëpp ñu ngi fi supporters yi ak si équipe bi mais saa su ne lépp lu xew si équipe bi ñu ngi koy déggante ku si am combat tam nañ fi teew def sa li si si entraînement yi mais jon waa daal loo mun am muy du jon waa kese gandul ñëpp il yi nekk foofu yëpp waaw su ñu amul combat dañu fay nekk di saafonte xam nga nekk dellu suñu cosaan te loolu la ñu fi am tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. gone Rebeuss baa ngoog. ana waa Rebeuss. waa Rebeuss ñu ngi ko Dakar Plateau bi gars yi ñëpp a ngi fa waaw. Euh, yaa ngi ci ñaata combat. man douze combat laa bëri. douze combat sa combat yi du ma xam naa du ma fi nekk di ko lim benn par benn ban combat moo ci gën a metti ban combat moo ci gën a metti yi nga man sama combat yi moom mujjee bëri dafa metti hmm. waaw bu mujj bi. waaw bu mujj bi nag moo ci gën a metti quoi. bu mujj bi ci gën a metti waaw na moo tax combat bi metti waaw combat bi mooy loolu. combat bi waaj nañ ko comme ni ma fàttali ko diggante ma coince la waaw waaj nañ ko comme ni ñu ko doon waajee xam nga. def nañ lépp lu ñu waroon def mais xam nga tamit ñaari jàmbaar moom bu ñu dajee moom mënul yomb quoi yee noonu la mënoon demee moo tax combat bi métti quoi. Hmm. mais xaaroon nga ci loolu xeex xeex bu yàgg ba ba bu yàgg xaaroon nga ko ci. non làmb jooju moom ñu seen loolu mais xam nga làmb ñun moom dañuy pare lépp xam nga làmb moom dernière décision moom li ñu wax chaque jour rek yàlla suñu borom moo ko yor. Hmm. dañuy nekk si li nga war a nekk def li nga war a nekk rek mais léeg-léeg lii dernière décision bi lii am jour suñu borom kese moo ko xam. waaw loolu moo tax tamit bi ñuy dem tamit waaj nañ lépp moo tax mu demee noonu tamit bi mu yàggee ak méttiwaay yëpp tamit teewul gérer nañ ko. lan moo la ci gën a métti bi nga bi nga bëree ba noppi dem toog seetaanaat combat bi lan nga gis ne moo la ci gën a métti ci combat bi. waaw man li ma waxoon laay waxaat rek man tolluma fu may naxaroo dara parce que ay ndaw lañ bi duggee si làmb ak léegi yàggul ku dugg si làmb 2015 xam nga di bëri ñoo xamante ni yow ñi may bëri ñëpp ñoom ñoo ma jiit si làmb kon lu dul sant waruñu amuñu dara lu ñu si naxar dañuy sant rek xam ni yàlla lépp loo xam ne da war a si jàmm dafa gën si ñun loolu dañ ciy sant yàlla mais amuñu si dara lu ñuy déranger wala lu ñuy metti wala dara parce que képp kuy uti tamit da ngay ñaan yàlla am ngay ñaan mais leen lu la yàlla may nag da ngay jël xam ni carrément jàmm buy sabalu kese nga moo tax ñun du ñu naqarlu dara waaw ndax tey jii nii moom àdduna moom li may sama gars yi ma nekkal chaque jour rek heure boo xëyee del xool si ñu nga tane mais bul xool ñu la tane ndax amaana boo dee xool si ñi nga tane rek dina la gën a delluwaat sa xel ci yàlla bu baax a baax a baax mais boo dee xool nag si ñi la tane mooy waral tey jii xam nga ngay ñàkk di ñàngi wala ngay dugg si yoo xamante ni mën na su waaye dara àdduna jaru te ñu lay ndaw lañ rek tollaguñu foofu daal. Mhm. waaw. Euh, yaa ngi ci ñaata combat yow. man maa quinze combat. quinze combat. Mhm. am nga combat am te bëre nga ko nga daj ci coono yoo xam te ni géej nga koo daj ci làmb. non man moom sincèrement parler sama combat yëpp lay daj coono. yëpp yëpp yëpp. sama combat yëpp lay daj coono. non maanaam nga ñëw ci digg géew bi. Mhm. Euh, la nga foogoon amu ci wala nga bëgg combat bu métti yàgg. waaw boo xoolee ba xool sama combat bi ma bëreetee mu méttee yàgg mooy sama ñaari combat yi ma mujjee bëre rek mooy sama diggante ak armée ak Modja. waaw sa diggante ak armée métti na mhm. yooyu soo mbaayoo bëri naa ko mu yàgg te métti. la moo mu yàgg da nga ñëw tolloo ñoom doole wala la nga fa foogoon moo fa nekk. non wala lan mooy problème bi. du question tolloo ñoom doole parce que képp koo gis mu ñëw si làmb rek. Mhm. entraîné na ay mbokkam yëpp ko. xam nga am si jàmmam yëpp ko mu dem entraîner comme ni ma entraîner noonu la entraîner bu nag bu ñëwee si làmb ji day def fulla comme ni may defee fulla loolu moo tax combat yi que li tax combat yi metti man dama ñëw sama combat daa ñëw rek abusif la ma dal sa kaw. Hmm. mais bii dem papa sama gars ma moo tax chaque combat damay ñëw jël sama temps ba heure bu mu waree jàpp ma jàpp su ma waree exploité dama exploité lépp lu si am rek xam ne yàlla moo ko dogal quoi parce que yàlla mooy maye ñun dañuy ñëw hmm. dañuy sabablu rek. dañuy sabablu rek moom suñu borom la. mais dañuy sababu si làmb rek mais ñaari combat daal gis naa ñoo si gën a métti sama combat yi ma bëre te ñoo si gën a yàgg tamit. sa diggante ak ambulance da nga ñëw. Mhm. ñëpp na ambulance la mën ñu ci bari wala boog ñu ci bari na ambulance la mën ambulance jàppee tey nga dee mais ñu ñëw affaire bi ëlbatiku. Mhm. mu yegg la fu sooy nga daan ko jël bu rëy boo xamante ni nii ñëpp dañ ne woon caat mënu lool. non même avant gars yi di ko wax man dégg naa ko fu ne bi ma jëlee bi ma jëlee avance bi dégg naa ko. parce que nit ko dem pour daanu loolu la gars ma jël am na xam ne gëmuñu ne mun naa daan ambulance mais man dama gëm naa li nekk si man te xam naa li ma mën. Mm-hmm. xam naa li ma nit ko ëpp ambulance doole jël ay drapeau fu ne. xam nga bu ma ñëwee ambulance tam champion la comme champion il mu mu noonu la mu mënoon demee gars yi xalaat parce que moom mu ngi treize combat zéro défaite boobu amul défaite maa ko jox première défaite mm-hmm. mu ñëw mu demee noonu xam nga yàlla moom may nag yàlla ma may yàlla xañ ko mais man lépp lu ma ko lépp lu ma si doon xool si combat bi daal gëm naa ne jël naa ko te war naa ko mu daan ma ko jël loolu laa wax Boy Bambara moo ngi si dëgg ngi si fen mm-hmm. ba ko jëlee avancé si guddeem si guddi dama dëkk dëkk ba mu ne am ko jël ko boobu maay dëkk ba fekk dama jógee géej ba ñëw rek mu ma téléphone mu ne ma foo nekk ma ne ko non instant maa ngi damay jox jógee géej ñi maa ngi mm-hmm. na combat ma ne ko moom combat mu ne ma ambulance fekk sama benn booy mooy àndal su ma amee combat dañ ñoo mos a seetaan combat ambulance télé bi suñu kër suñu saal. Hmm. mu ne ma caat kii yéen ñaanduroo ngeen tôt tard di ngeen bëre. mu wax la loolu waaw bi ma paa bi automatiquement sama xel si loolu la dama ne paa bi jëla combat yi amul dara loo si mu jël combat bi ma ñëw Dakar Assane Ndiaye fii si la combat bi noonu la demee ma ñëw préparé ko son écrit ak son mbokk tamit yàlla may ma ndam. Hmm. yàlla may na ndam gis ngeen mbokk yi ni lay demee ci jàmmaarloo woo ñaari bëri waxtaan ak ñoom ku ci nekk defe naa ne wax na fi mu commencé ci làmb ak combat yi nga xamante ni jot na cee jaar muy yi nga xamante ni yu neex la wala mu ne combat yoo xamante ni daj ci ay coono mais ñoom ñaan ñi nag euh, kii dafa bëre ki nga xamante ni mooy Quench kii bëre ki nga xamante ni mooy Modja mais kii yàlla na ne am na ci ndam kii defe naa ne tamit dañoo jox Quench ki nga xamante ni mooy mooy mooy mooy ndam par décision arbitre dañ ko joxee ndam mais ñoom ñaar ñi euh, dafa nekk combat boo xamante ni amateur yëpp dañ ko bëgg ñëpp dañ koy xaar ñëpp di ko waxtaanee mais problème bi mooy Double Moteur bëgg na. ci di caat bëgg na moto yi tam bëgg nañ mais xamuñu fan lay tegee gannaaw nag tungu ne du teew moom ñu natt ci ëkk euh, ñu waxtaan ak ñoom ci kombaa bi Double moto sa digganteeg euh, mu caat luy problème bi caat. sa digganteeg non waaw amu ci wax nga lépp rek. xas-xas loo ngeen fu ne. waaw mooy li ma la wax rek. parce su ma ñëwee seen Ibama ba defe naa ne que moom ñu doon bëri sax dañ leen a mujjee fàtte. waa xam nga làmb la boo xamante ni maanaam comme ni nga ko waxee rek amateur yi bëgg nañ ko xam nga. supporter yi bëgg nañ ko bëgg nañ ko te ñun làmb lañ fi nekkal. Mm-hmm. làmb mooy suñu métier. amuñu pour ne kii la ñuy bëreel wala kii la ñuy bëreel képp ku ñu làmb boole ñu war a bëre. Mm-hmm. dañuy bëre même bu fekkee ne ni tamit am nañ ay choix di yóotu mbër yi ci kaw tamit suñu choix bopp la quoi. mais bu yàlla dogalee ne tamit ñii lañu war a bëri làmb boole ñoom ñoom promoteur yi doxoo ñun bu yàqoo suñu. mais mais nag mais nag duubu duubu duubu li nga fi wax nii yëkkatil ma micro bi tuuti. Ah. muy leer xam nga tubaab moom waxam signature la bëgg wala tampon. waaw damaa bëgg mu leer xam nga des fois nga gis mbër mun nañ ma jox diw. taxaw ñëpp wax ko ñu seeti ko. mu ne noonu man sax diw moo ma gënal jiilee ma gënal wala aadama ma gënal. waaw loolu dëgg la moom may xam nga wax dafa tënk lépp moo tax ma wax la wax bu am solo dama la wax boo xam dafa. tënk lépp mais léegi ku la andiloon avance caat laa la wax man damaa bëgg wax ji ah. ku la andiloon avance caat. naan ay bu ñu andilee avance gi wala bu ñu andilee avance kee yaa ngi dégg. man est-ce que gisuma promoteur bu mën a teg xaalis moo tax ma lay laaj loolu. loolu moom nga koy laaj. mais man doo ma ko laaj. kon posal parce que wax na fii ay wax ay kii affaire yu demee noonu. waaw moo xam moom dafa tënk wax comme li mu wax sànq rek. non bul wax ci li mu wax dama lay dama si ñëwaat. waaw ñëwaat daañu si loo ma laaj. waaw xam nga moom champion la man champion la mhm. def naay mhm. ma su ma ne waruma moom damay wax lu mhm. moom tam mu ne waru bëre wax lu nga comme wax na wax su ma benn saa nit mbër mbër soo am day nekk foo xam ne da ngay laaj ñi si kaw ñi si kaw di ñu nangu bëre man comme nu wax man du ma ne dinaa bëre duubul du ma ne du ma bëre xam nga du ma du ma bëri bëri diw parce que xamoo li xew ëllëg. Mhm. xamoo li xew ëllëg. parce que mooy may chance maa koy may may xaalis maa koy may xaalis. Mhm. xam nga la bon nag suñu ma indee ma ko lu ma neex. xam nga li ma wax non mais man dama bëgg mu leer dama ne est ce que pare nga pour jël avance laa wax. mais pare naa pare naa pour jël avance si kaw ñu ñu déggoo cadre yi déggoo si ménagère yi déggoo promoteur yi déggoo ñu leen laaj ñu jox ñu ko su suñu staff déggoo parce que mënoo jël loo xam ne. mais nag des fois nga ne bëgg naa munu munu ma def loo xam ne suma staff bëgguñu ko. moom mais xaalis bi des fois mën na bu bëgg bëre loolu dëgg la parce que liggéey lañ mooy suñu liggéey. Mhm. mooy suñu métier. mooy suñu métier mais yéen nag li ngeen di sommé dafa bàyyi de. parce que mënatu mënatu ma toll fu nekk li dafa bàyyi de double li ñuy sommé comme. non ñu andil loolu nga ne non non bëgguma loolu toog di xaar loo xam. non loolu loolu loolu. loolu loolu bàyyi ba ma kii da nga man bokkuma si genre mbër yooyu noonu. man bokkuma si mbër yooyu noonu. man am xaalis moo tax mu naan lu ma fay lu ko jaral. mooy li ma la man dama ne la dama ne la man dama ne la man dama ne la man amul benn combat bu ñuy dox. si man mu yàqoo ci man. est-ce que yaa may dégg loolu kay leer na xëy na bu dee tey jii fii ne wax ji moom la xam nga tey nekkuñu maanaam di signer contrat quoi. yaa ngi dégg émission la ñuy def man ak moom. mais nag xanaa xamoon émission bi bari na ci promoteur yoo xam te ne dañuy toog di ko seetaan. moo tax nag may déglu ma si liggéey ñëwal ay adversaire lañ ñu war a bëre man ak moom mhm. moom xam nañ ni war nañoo bëre man xam naa ni war nañoo bëre. Mm-hmm. làmb nag promoteur moo koy dox. Mm-hmm. yaa ngi dégg promoteur yi ñu ngi koy dox am na promoteur yu dox suñu combat. ñaata promoteur ñoo la woo. non promoteur mooy kii sama combat ak moom laa la bi. bala baatu bëre par force la. dama ne la sama combat ak moom du tey bi ñu ko dalee dox ak léegi xam yàgg na du tey bi muy bëre comme li wax rek bi muy bëre mu ja. Mm. sama combat ak moom ñoo waroon bëre man bi may bëre Quench moom laa waroon daw su combat da ngay déglu ma expliqué man lu ma xam ne bu dee yàgg moom la moom mu bëri mu ja da ngay déglu xam nga ni sax moo la ma wax naa ko fi sànq bu taxoon tey jii tamit wax ji mooy bëri coow li mooy bëri mais bu ñu bëree bëri leen la ñuy wax ay xamoon nañ ko la ñuy wax rek xamoon nañ bu ko jàppee da koy daan moom moom bu la jàppee da koy daan yow loolu la gars yi wax kese comprendre mais dama la bëgg a xamal benn affaire sama combat ak moom. <laughs> déglu mooy sulu dama lay expliqué. waaw dama la bëgg a xamal benn affaire dox bi muy bëreeg Modou Dia man ak moom ñoo doon bëree. Mm-hmm. moom du ma bàyyi ma fen mm-hmm. ku si bàmmeel ñu yàqoo si ñoom. bi may bëreeg sama combat ak man ak moom ñoo doon bëree. Ah. li may wax promoteur ba ngi may dégg bu baax xam na ko moom xam na. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñu yàqoo si moom. yaa ngi dégg ñaar yëpp ci moom la yàqoo. ñaar moom la yàqoo man kii sama combat moom mu suul tagee ci man wala mu yàqoo ci man heure bu ñu ko doxee si ñoom lay tagee wala mu yàq si ñoom kon tey bu fekkente ne dañuy wax cadre làmb wala dara bu fekkee ay cadre daw la ñuy wax wala cadre combat bu ñu dara loolu moom lañ koy laaj mais mën lañ koy laaj. su comprendre baax fi mu waxee. Mhm. tey sànga dama la wax làmb moo nekk loo xamante ni mbër champion boo fi gis. Mhm. combat buy mënti taxaw. staff dinañ ñuy am ñu d' accord am ñu d' accord. Mhm. loolu ak làmb ñoo ànd mais lépp loo gis ay waxtaan moo koy tënk dafa wax wax solo. ñun ñoo ñooy mayante xaalis. Mhm. mënul taxaw rejeté ma mënuma taxaw rejeté ko. parce que dañoo am benn palier boo xam ne dañ ko bokk. Mhm. yaa ngi dégg te palier boobu pour percer dem ci kaw tey jii foog ñu bëre. nag maanaam tey jii nii loolu noonu moom moo koy xam faciliter promoteurs yi affaires yi combat yi taxaw. yaa ngi dégg. su ko xamul aussi tamit ñun dañuy dem nekk si leneen parce que combat tëwuñu amaana comme moom it combat tëwu ko. comprendre parce que chaque jour ko jëfee. Uh-huh. exemple quoi parce chaque jour ko jëfee. promoteur mi woo du ñu wax ay mhm. yaa ngi dégg dañu laaj yan adversaire lañ bëgg a bëri mhm. loolu sens la du lu ñu fi liggéey du lu du suñu njàmbaar du dara mayu suñu borom la kese bari na ay espoir yoo xamante ne tey jii nii mhm. defuñu ñun si làmb lu war a tax ñoom ñuy taxaw duñu laaj te fu ñu leen dëkkee ay am bëri ñun moo leen ko gënal kon loolu lañ ci sant yàlla bu baax a baax kon xam nga ñun tey amuñu ay problème combat wala amuñu ay problème mu bëre est-ce que comprend baa mais xëy na peut waxtaan moo ñëw sama diggante ak moom mu nekk sama adversaire potentiel ñu war a bëre waxtaan ñëw sama diggante ak moom kon si ñoom lay tagee mais du tagee si ñun. tegal foofu sa baa ma ñëw caat nag fi nii daa mel ni wax ci tënku na. parce que man mhm. dafa am loo xamante ni dafa xawoon lan bët sama xel mi te moom fi mu toll nii daf mel ni leeral na ko. Mhm. lan nga dayoo booy bi. non kii daw ma ko. ñaari yoon. non déglu ma rek kii su ma nee may daw moom si làmb ma bàyyi làmb xam nga comme li mu wax sànq dañoo ñëw ñëkkuñu si signature. dañoo ñëw si plateau pour waxtaan mais ñëkkuñu ah, ñaari yoon. Mhm. benn bi dinaa ko confirmer sama diggante maa ngi mujj. waaw man ak moom ñoo waroon bëre. Mhm. man ak moom ñoo waroon bëre Abdoulaye Ndiaye boo xoolee dina la ko dama ne jo du moteur laay jël. Mhm. si diggante bi sama staff gis ne ñun nañ jël mujj parce que lu tax ñu naan ñun nañ jël mujj parce que mujj moo daan kewel xam nga li ma la wax. may la am problème ak loolu loolu décidé ma jël mais sama diggante. sama diggante waaw xool gën a nooy rek. waaw ok am problème waaw mujj moom dafa nooy am problème. diggante moo moo coince. bon sincèrement parler du ma fen mhm. benn promoteur woowu sama diggante moom wax ko mbaam moo coince ñoo ma bu ma bëree moo coince. kenn ma ko yàlla ku dee ak sa bàmmeel nag déggu ma ko mais sama diggante maa moo jëm moom. Mhm. man moom ñëw si waroon bëri. sama beneen adversaire bu dul ñun. yaa ngi dégg mu joxe accord am yaa ngi dégg mais boobu fekk na ñu dox suñu combat kii ba sonn di ko topp mu bañ. promoteur bi laa wax de. Mhm. est-ce parce que man problème bi dama ne ko carrément ñoom bu ñu d' accord après nga ñëw wax gars yi amuñu problème boobu noonu. yaa ngi dégg si diggante bi si la ko si d' accord ñu bëree. mais man mais man dafa am lu ma jaaxal yéen bi ngeen. bi ngeen pour mu leer quoi waaw donc dina dina leer kay. bi ngeen tasee Ibama di ngeen dëkkante dëkkante ba amateur yëpp nangu ñëpp d' accord. non bu ñu tasee mais yow. non bu ñu tasee Ibama dëkkante wuñu de. lu ngeen def. dama wàcc di bàkku. waaw dama wàcc di bàkku. bi ma ñëw ba style bi ma tàllal loxo bi ma tàllal dama ne ponkal na ñëw ñu bëre. mais moom dong moo nekkoon ci ponkal mais moom moom moom mu ngi fa doon toog. waaw moom kenn moo fi nekkoon ci ponkal mais moom su ma ko doon tegu. waaw su ma ko doon tegu

xam nga mhm. waxtaan wa dëgg ci la stade jour boobu noonu man maa fa nekk comme adversaire potentiel bu mu war a mën a ah, bu war a mën a dëkk nga waxtaan wa dëgg ci la comprend nga mhm. xëy na peut-être tey wax ji moo fi nekk nii wala dara mais gi nga nekk stade tëkk mbër mhm. wala dajeeg mbër nii jox ma diw yomb na torop barke alxuraanu karim gaa yi nii xamante nañ bu baax a baax a baax mais nag yow ma déggee ni ngay waxee da nga bëgg dafa mel ni da nga bëgg wax booy ñemewu la non non loolu gi du ay question parce ñu doxee combat mu mu parce que xam la moo tax parce que xam la moo la moo tax bu ñu naxante quoi man bëgguma ñuy tricher wala ñuy naxante quoi nañuy wax li ñu gëm li nekk si ñun comprendre man tey jii caat su ma taxoon tey bëgg a bëri moom tey jii nii sama combat moom tey jii nii mm-hmm. wallahi azim barke alxuraanu karim du sama staff lay yàqoo tey ku ci d'accordul man maa andi woo ñoom ñëpp ñu toog parce que tamit gi nga ñun ñooy leader yi quoi ñun ñooy mm-hmm. l'essentiel yi tey gi nga leader l'essentiel tey yow ki nga bëgg a heure boo xamante ni tey jii ni say staff ñoo fa nekk di diidal boo leen woowee réunion boo waxtaan ak ñoom dañuy ànd ak yow ci li nga bëgg parce que yow yaa yeewu fajar yow yaay dem di entraîner yaay dem ci salle yow yaay dem di contact yi est-ce que tey temps bi du fi xaar kenn kon waxtaan wax dëgg ca la quoi dañuy wax dëgg mhm. kon pour man am na yoo xamante ni gars yi des fois nañuy bàyyi yooyu quoi ay staff boo xamante ne bépp bu saa ñuy wax la la ñuy benn nit la ñuy wax moom la ñuy déglu benn nit boo xam ne deux ans moom ngay déglu mais tamit après da ngay dem bi da ne ñii xëy na peut être leneen lañ bëgg wala leneen. doo fi nekk tamit di muséw ci ñoom wala dara da ngay dem nekk si leneen rek. jéem ko débloqué gannaaw bëgg ngaa bëgg moom. non combat fu mu amul jéem ko bëgg a ñàkk bloqué. Mhm. combat bloqué fenn lu mu wax nii. Mhm. sama staff naa waxtaan ak ñoom. du benn yoon du ñaari yoon. du benn du lu kenn kenn nekkul man. Mhm. kooku laa gën kooku laa kooku laa respecté. Ah. damay respecté damay respecté sama course. sama course am nañu si am nañu ko bëgg am nañu ko bëggul. xam li ma la wax mais man toog naa waxtaan seeg ñoom ñii nii toog nga waxtaan ci ñoom. du benn ñaari yoon. dama bëgg a wax ñoom bu ñuy bañ suñu combat ak ñoom du si fenn fu ñu koy teg amul raison bu ñu koy teg nga ni sooy bañ dara da nga koy teg ci raison. Mhm. mais amul si benn raison bu ñu koy teg wala dara. est-ce que nga. bu baax ñun bu ñu neexoon ñu taxaw ne du ñu bëreeg caat. Mhm. bu ñu taxaw ne dañuy leneen lu gën a kawe caat. est-ce que yaa may dégg parce que nañu fi ay combat yoo xamante ne ñooñu ñoo ko supérieur moom est-ce que comprendre baa fi may waxee mais lamb day toll foo xamante nii day am lamb yoo xamante ne amaana lamb coow la lamb tension la lamb yoo xamante ne day dëkkilaat lamb yaa ngi dégg moo tax sax ñu siy débat yenn débat wala ñu siy wax yenn wax yi mais ñii ñoom xamante nañ bu baax muy SFM muy gaay muy ñi mu dëkkale la mu nekk la ñëpp ñoom man ak ñoom dañoo xamante du du tey du làmb avant lamb dafa yàgg lii waral ñuy wiiri wiiri wiiri wiiri yëpp loolu kese la xam nañ ki ñuy wiiri xam nañ li tax ñuy bañ a jël avance loolu nag ñoom la engagé ñoom ñoom la rek. mais nag mais nag Thiat yow bu fekkee par rapport ba kii li ma ko mën a muti beneen combat. déet parce que moom bëgg na bëgg yow te yow sa waay saaf. xaw ma mu ne dégg nga nee na samay saf xam nga lu ñu bëgg. Hmm. man ma man ma man ma seeti leen lu ko gën a kawe. voilà gi samay saf la ñuy waxee ma xool lu ko gën a kawe. <laughs> moo li ma la xam nga xam nga dëgg yow bu fekkente ni yow sama kombaak moom li ma fi dafa leer dañ ko dox. SAFM mhm. ne ko non bàyyil diw nga dem jëli Modja. waaw mu dem jëli Modja. yaa ngi dégg man sama combat ak taxaw Quench moo supérieur Modja ci lépp. yaa ngi dégg moo ko raw ci làmb moo ko raw ci kase moo ko bëgg coow ci lépp. Mhm. dañoo wax dëgg quoi sérieusement. Mhm. kon xam nga kon ñoom bu ñuy tegi avance ci teguñu ko si raw teguñu ko ci adversaire boo xamante ni moo supérieur wala daal ci lan lañ ko teg jàpp ni clé moo gën a nooy ñu dem jëli loolu noonu. dëgg la yàlla bëgg quoi bu ñu naxante quoi. kon bu ñu ñëw ba fii toog di wiiri wiiri wala ñuy wax ay wax yoo xamante ni gëmuñu ko wala dara man damay bëgg lépp lu ñuy wax nañ ko teg ci logique. moom dafa wax wax ba solo yaa ngi dégg xam nga muy lan mooy moom accès benn dàqoon na buy bëre man parce que li mu wax fii leer na amul lenn loo xamante ni tey jii nii dina dina ma ko bañee man. Hmm. kon xam nga loolu dafa tënk lépp. man mi aussi tamit du ma taxaw feneen na caat dama koy bañ du ma bëre moom dañoo waxante dëgg quoi. comprends nga. Mm-hmm. kon tey xam nga am na loo xamante ne tay jii buñ jooy wax tey jii nii estafa moom bu fekkente ne dañuy wax maanaam ci cadre di di di bàyyi ma fi dem jëli beneen adversaire teguñu ko ci adversaire bii nii dafa raw diw wala adversaire bi moo gën a baax ci lenn lañ ko teg mooy adversaire bi amaana moo gën a yomb daan ñu dem jëli ko. Mm-hmm. parce que tey jii munu moom bi mu fi ba bi bi ma fi bàyyi bi mu ko bi ma ko tegalee tegal ko Modja mu bàyyi ma dem jëli Modja man damaa dem jëli Quench. Mm-hmm. Quench moo raw ñooñu ci làmb. yaa ngi dégg. Oh. ñaari événement yi sax bokkul. est ce que comprend baa fi mu waxee. kon tey pour man wiiri wiiri wi ak wax yëpp jaru ko quoi parce que combat bi mu bi ñu ta bi ñu tàqalikoo bi ñu tàqalikoo dañoo ñëwaat ñu woowaat ñu proposé ñu ay yaa ngi dégg bi proposé ay ba boole ko si ñoom ñun génnewuñ ko ci adversaire yi ñu proposé. Mm-hmm. est ce comprend ñoom ñu seeti leen ba léegi ñoom ñoo fi nekk di loolu dara comprend parce que làmb léegi moo baaxoo noonu da li lay wax combat nga bëgg a xool dem say mbokk di xool ak genre affaire yooyu noonu loolu moo fi am yaa ngi dégg boo jekkee jël soo jekkul dem xooli leneen loolu léegi moo fi am dañuy wax ne dëgg amul leneen mais du da nga koy teg ci diw yaa ko gën a seer wala diw yaa ko yaa yaa ko yaa ko raw ci làmb wala diw yaa ko daa ko wala dara amul si fenn foo koy teg yaa ngi dégg. Mm-hmm. voilà kon tey jii nii am na loo xamante ni maanaam moom su ko bañee du du amul raison quoi. teg làmb soo koy bañ rek na am raison boo xamante ni mooy tax. nga ne diw mii du ma bëre moom ndax lii ak lii ak lii moo tax du ma bëre ak moom mais du ci kase du ci raw du ci dara. du ci adversaire yi ñu mujjee bëre. léegi yow budul budul budul budul double moteur ñan nga bëgg a ci làmb. man du ma nekk fii limbe mais suñu double ma ñi ma war a bëree xam nañ leen. muy ñan man 15 combats laa def comme ni moom nu mu ko waxee 15 combats laa def. bien vrai ko njëkk a bëre ci aaree. Hmm. maa ko jiitu maa ko njëkk a bëre. ku nekk da nga wax dëgg ak sa baam Mm-hmm. maa ko ñu ko ba man 15 combats laa def man heure yi fekk may bëre ak ñoom Moussa Ndoye ñoom ñoom Papa Sow ñoom Guy gi. Mm-hmm. mais xëy jaam ak pexem yàlla ak dogalam. yàlla moo ko defee noonu. mais tey jii ñooñu ñoo nekkoon sama adversaire sama staff mm-hmm. ñooñu la ñuy yóotu. maa ngi dégg. ñooñu ñooñu la ñuy yóotu. defaat benn preuve mën a mën a mën a. non du question du question du question du question wàccaat parce que boo xoolee boo ma nag. damaa ko mag wala magu même su ma ko magee sax si dayoo sa ñoo toll man moom. xam nga li ma la si dayoo ñoo tolloo mën a neex la kay ma xam naa ne waaw maa ngi la benn affaire maa kii nag dala ñeme man loolu moo ci a non danga koo ñeme kay parce que fu mu waxee nga taakale moom dafa yéeg dag may maanaam ñoom xam nañu combat bi si ñoom la tagee ñu taxaw ne carrément combat bi kat su ñun la tagee yaa ngi dégg mhm. ñu bañ a sonal kenn problème bi sa foofu mooy moom dafa yéeg ba ci kaw bëri na ak Zarko bëri na ak Modou Anta. Hmm. yaa ngi dégg xëy na peut être ñàkk combat moo tax sax mu wàccaat mën a bëre ak booy yi. Hmm. est dégg d' bi mu dafa def ay preuve moo tax mu yéegoon ñoom ci kaw. waaw yaa ngi dégg ñun aussi ñuy def suñuy preuve yaa ngi dégg ba làmb boole ñoom ñoom ñu war a bëre. kon pour man fii amul ay wiiri wiiri wala ay làq-làqal wala ay ay nan nangam wala nangal comprendre ñun ak ñoom du tey dafa yàgg mbapat la ba léegi. man kii bëri naa mbapat moom di booy boo bi daan yaa ngi dégg kon xam nga loolu tey loolu yàgg na. Hmm. boobu moom mi ngi toj arène Lac toj arène xam loolu yàgg na. Hmm. li mu nii man kii ñëw naa seen école maintes fois doon booy di ko seetaan entraînement li may wax du ko weddi wallaahi ku dee ak sa bàmmeel su amul yàlla bu ma yegg fi ma jëm te defuma ak choc. déet dugg ci loolu. yaa ngi may dégg noonu. Hmm. dañuy waxtaan quoi. Ah, est-ce que kon xam nga kon ñii maanaam ñun suñu taxee tey suñu demee ba làmb ñuy taxaw di wax ñun di wax ñoom làmb ñoom bu ci dee yor wala ñu di la xam nañ ñun tax ñuy yor nekkul ay maanaam ay ay ay ay ay kii de ñoom xam nañ bu baax a baax a baax baax lan moo leen. mais léegi su dul su dul caat parce que bu fekkente ni ci côté mafia bu fekkente ni ci côté mafia côté public côté lépp laa la wax. wallaahi Azim suñu booy ñoo gën a pare seen booy téeméeri junni yoon wallaahi Azim te bu desee ci man ak moom ci géew kese wallaahi Azim bu arbitre sifflé bu ñu paree dañ naan xamoon nañ ko rek la ñuy wax li ma ko woon laa koy waxaat. su ma ko jàppee dama koy daan. maa leen amul bëre bu ma daan. billaay wallaay tallaay kii fukk maa leen man. kii amul bëriwul daan amul bëriwul daan amul kii amul amul fit kii ñemewu. bu combat bi taxawee bés bu kii ñemewu ma. lu mu wax naan xam nañ bu ko jàppee dina ay moroom jaaroon nañ fi bés bu combat bi taxawee. dinaa ko la manière dama dégg saa ah, loolu loolu taxaw di ko bëyloo ba mu xoox nga doog dégg ma dinaa ko daan avec jàpp ko jàngal ko bëri daan la rek yooyu yooyu dafa baax da nga la doon seetaan seen ba <laughs> xam na li mu koy wax kii lu dul abisi lu mu ñëw plaqué la jàpp te man loolu daal yooyu la amul solo xam la moom solo man biir na ma ni bu ñu bëree barki Seydina Mohamed ma daan mm-hmm. barki Alxuraanu Karim billaay walaay talaay suñu bëree laa bu suñu combat taxoon laa la su xeexee dama koy duma su bëree ma daan wallaahi azim maa ko mën dix fois. du mu ah, dafa am lu ñu déy. non non du déy du dara de waaye ñii ñun ñu xam leen bu baax ñu xam leen bu baax ñii mag ñu téeméeri junni yoon ñun ñu nekk ay booy dem ba tolloog ñoom si dayoo yaa ngi dégg xam li si làmb bu baax a baax a baax ñu bokk millier bi ñii sorante wuñu gi nga Grand Dakar ak Rebeuss sorante wuñu benn la yaa ngi dégg ñu yàgg daje ci ay bis moom xam na li mu koy wax bu baax. Mhm. foofu laa ko teg de mais du du du ci leneen. kii man leer na ma leer yàlla la suñu combat bu taxoon wallahi azim dama koy duma dama koy daan dañuy taxawaat fii lan la ñuy wax ay xamoon nañ ko la ñuy wax nangam ak nangam barke alxuraanu karim man moo tax lu ma bëgg sax di wax ci combat yi wala ma ci ma ma ciy débat lu bari man mosoo gis ñu may laaj sama combat caat ma ciy bëgg sori wala ma ciy bëgg wax. waaw parce que seet parce que xam la moo tax xam la moo tax du ci wax xam la moo tax du ma ci wax. tey ñu may propose adversaire yoo xamante ne ñoom laa gën bëgg. micro bi hmm. ñoom laa gën a bëgg ko caat. tey bu fi caat si son tey jii ma jël ko tamit lan la ñuy wax combat bu yomb la jël yaa ngi dégg. barki Serigne Saliou Mbacke <laughs> billaay walaay tallaay. non man nag man nag caat caat caat caat kenn nga yombee noonu. wóor na alxuraan bu combat bi la loolu la ñuy wax combat bu yomb nga jël nangam ak nangam. jaar ñoo bëre yëpp nii la ñuy def dañuy ndel du wax rek. bu bés baa bu ñëwee bu ñu ñëwee stade du ñu xam si fu may jaar. non déet man caat boo man douze combat laa def. ñoo def man deux défaites yi ma am yëpp sans euh, ñoo la dàq bëree. Eh. man ko dàq bëree ñoom ñoo ko dàq bëree. ma bëree yow moom. moom naa soga da duuma daan ko bi ma ko jàppee amatul seconde kon yooyu du wax quoi kon yoo ba ngay bëree naaru soxaan sa bëree yow te bi ma ko jàppee si ay seconde laa ko daan te dalaa pourtant dalaa jàppee ba ma duuma la daan kon yooyu existé wul. xam la moo existé ah. la mooy l'essentiel bi. Mhm. mooy boo doon def tey jii tey jii laa la ki sama combat ak moom bu taxoon tey jii nga doon def sondage tey jii wallaay azim laa la boo defoon sondage laa la quatre-vingt-dix pour cent yëpp laa la wóor na alxuraanu karim duñ ko duñ la ne lii combat dañ naan la diw moo mën te loolu moom moo la ko gën a xam foofu. Double moto daal fi mu teg ne mën na caat man balaa ma koy gëm làmb ci taxaw caat taxaw Double moto taxaw abi bi génn seen diggante. voilà soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. waaw li ma amoon su ma amoon kàddu yu mujj mooy di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant waa Wassare Lamb di sant sampion bi di sant ñu fi liggéey bi ñaan ñëpp jàmm ñaan Sénégal jàmm yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla ñu yàlla wëlbati xel itam ba combat bi taxaw man ak moom. ba li muy wax nii. yaa ngi ñaan lu solo. waaw yal na yàlla ëlbati xel yi ba combat bi taxaw li may li may wax xam ne li may bu baax ba combat bi taxaw man ak moom. bu comme bés bu combat bi taxawee dina xam ne kuy caat dina xam ne na ma duma wala dina ma daan du ma tamit di wax xaadim yow bés bu combat bi taxawee <laughs> yàlla baax na non foole seede mais sim naa non non bambal fa sim ngol non lambal feneen lamb jam ay wër di jam jam ma ñu ma diw mi ngi fi nangam ak nangam man wuy ma ay ree moom ay jàpp damay ree rek yow suñ bamba lañu tuddee barke man suñ Babacar lañ si lañ ma tuddee sa waay moom lañu jarul ay ay xaar bi dama lay non a mooy ay xaarim ak nangam ak nga ma xam turam te jaaruma si turam. mais tudd nu mu tudd. non jaru mu tudd. jaarul jaar booy bambara dama lan la. yaa ngi koy lijjanti de yow tamit de. xam nga la moo tax ma loolu parce que fii mbër yëpp a xamante. fii day mbër na ko xoolal mu tuub. non non fii mbër yëpp a ne dama la yow dama la wax benn wax ba mu solo te baaw ci xel. waaye doo ko bàyyi mu tàggatoo wala da nga bëggee ñaa ngeen bëyee. bàyyi ko mu tàggatoo nga ñëw ajo waaw te tàggatoo. waaw li may rek no folo seedi me simnaanu ngoɗum fay sima fay sima ngo heɗanaanu jameɗaanno wot kep ɗum seeto la me e eh, rek mais jaajafalaanu to sargalaanu leyonga ñaan ke ko moƴon sik ñaan ke moƴon ñaan xam nga di gërëm waa marché poisson sama nijaay nekk foofu di NGB bi yëpp bàyyi ñu kenn di gërëm waa xam nga ñu gën a jàpp bu baax ba parce que gis nañ ni ñu may taxaw bu baax xam nga di gërëm sama booy nekk Amérique waa New York maa ngi bu baax ba surtout Brooklyn ak sama nijaay may nekk xam nga New Jersey maa ngi di bu baax di jaajëfal ñëpp xam nga di bëggee ñëpp di kontaan si ñëpp daal parce que ñun lii lañ am quoi. Mm-hmm. lii mooy suñu culture. parce que lii mooy jaay làmb. te lii lañ yaakaar tamit. xam nga ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla defal jàmm. Mm-hmm. di wax président nag mu gën a jàppale jeunesse bi. Mm-hmm. parce que xam nga lu tax maanaam mu a jàppale jeunesse bi. man tey ji man rus naa dox si mbedd. nit tala ma loxo ni ma caat cent franc laa soxla wala cinq cent franc te fajal ma ko te joxu ma ko. loolu daf xam nga samay famille tam noonu. te man tamit noonu la fa noonu la fa demee moo tax boo gisee ñuy sonn yi ñoo tax ñuy sonn rek. Mhm. da ak ñi nekk suñuy ginnaaw parce que bu ñu amee gars bu ñu dimbalee itam ñun gën a bàyyi xel si loolu gën a oyofal mbir mi bien vrai que metti na njiit njiit neexul tam mais boo jiitoo nga gën a oyofal waa CNG tam ñu gën a ñu mbër yi dañu jàppale bu baax baax baax xool daañu ñuy teg parce que métti na trop nga bëri ba pare de sa fa reliquat nga ñëw jël sa reliquat ñu ne sa reliquat dix mille franc mu war a war a mille franc. am na mbéyum bu dem ba dem. neuf mille la fa jëli. neuf ma bëri nga am foo koy fayee. Ah? di wax mu ñuy wax ñu jël ay ñu jël ay comédiens di jox combat bàyyi fi mbëri nañu wax si loolu. loolu dama ko loolu dañ si war a wax te leen fay xaalis bu bëri nag bu ñëwee xaalis bi nga def comédien doo ko fay mbëri muy jóg di entraîné di yëkkati ay weñ di dem ay diin di ñëw dem géej di ñëw ah? dem si sëñ dugg fu ne di dem di ñëw nga di sa xaalis di ko jox ay comédien comédien yoo xam ne bu làmb neexee neexaluñ ko mbëri moo neexal làmb te loolu du seen métier ñoom nañ yem seen métier ñu bàyyi ñoo ak suñu métier mm-hmm. xam ma la parce nañ nañ ko waxte dee promoteur itam côté boobu nañu nañu si gën a jàppale yombale gën ñu si jàppale bu baax a baax a baax a baax xam nga loolu dafa métti quoi di ziare sama waa équipe di ziare Père Diakhaté di ziare Grand Zil korsu pek korsu mbay fay per daa xam nga di ziare gars yëpp mbëri fa amoon combat yi daañu maa ngi di fise yàlla leen ndamee ci ku mel ni Faly jeex jàmm di encouragé ñoom yankaawo xam nga ñoom yoro di yan encouragé di ñaanal mbëri booy fa nekk yëpp ñoom ñëpp yàlla nañu yàlla may combat xam nga di ñaanal sama champion yi nekk jonwaa tam yàlla nañu yàlla dimbali tam mu ñu am combat ñëw ba di compétir di ziare waa jonwaa ñëpp bàyyi kenn waaw. Dogo. demee gars yi dañuy rek di gërëm gars yi xam nga. Mhm. waaw di wax aussi tamit gars yi nii lépp lu fi baax tamit coobare suñu borom loolu lépp lu fi dëng ñu ngi koy jégal suñu borom. Mhm. te xam ne ñu nay ndaw lañ rek. waaw comme ni mu ko waxee làmb mooy suñu métier làmb la ñu am. yaa ngi dégg duñu ay noon duñu xam nga ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy lu ñuy yóotu mooy tekki dimbali suñu ay waajur kon tey jii bu ñëwee fii nii amaana làmb moo ñu fi boole ñu nekk si jàmm rek. Hmm. bu dul làmb tey jii ñoom tàkkusaan wala dara jàmm la ñuy seexlu naas lañ seex jàmm lañ seexlu naas lañ seex xëy na nag làmb moo waral tey jii nii boo dajee sa adversaire des fois muy xaw a métti mais bu jeexee jeex na. ñu fiy jégalu tamit lépp loo xam ne wax nañ ko fii si ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan wala ñoo ñuy déglu lépp ñu fi wax lu déborde ñu ngi koy jégalu ñëpp xam nga lépp lu fi baax tamit ñoo xam ne suñu borom la daal waaw di wax di nuyu tamit suñu waa koñ waa Rëbës Dakar Plateau bi li ko dalee Cap Manuel ba gël Gueule Tapée bàyyiwuñu kenn fas Colobane xam nga Medina bi ba Grand Dakar ñaar tali mu dëkk Biscuiterie yi parce que dañ fa may nit ñoo xam te ne dañuy sonn suñ dañuy jàppale ku ci mel ne Ilimane Gueye taalibi Serigne Salim amul ku ko xamul dégg nga ko. Mhm. dañuy sonn si ñun di ñu jàppale xam nga du tey daal dafa yàgg. xam nga kon ñooñu ñun foofu noonu dañ fa am dañ fa am cër ñaari tali googu noonu dañu fa am cër bu baax am fa suñuy mbokk yu fa nekk tam aussi tam am fa suñuy comme am suñuy gaay ba ci seen écurie am nañ dafay gaay am na gaay yu yoo xamante ni nekk nañ Grand Dakar ay nitam lañ te suñu ay nit lañ mm-hmm. te tey chaque jour benn wax lañ wax bu si bu sa combat ak caat taxawoon tamit mënul yàq dara suñu diggante caat la ñuy ñaanal ndam nag moom la ñuy gunge moom la ñuy àndal mais munul yàq dara suñu diggante kon li ma boole ak ñoom du làmb mm-hmm. comprendre nga te xam ne te ñooñu ay nitam lañ moom kon làmb day boole mais du tàqale. dëgg waaw dañuy dañuy neexal nii nag di waxtaan. parce que tamit ñun ay mbër lañ. Mm-hmm. ndax tey du ñu dem di wax ak di warante keneen koo xam te ne du mbër wala dara wala bokkuñu objectif ñu warante ak moom ci ay mm-hmm. dara. mooy li may wax chaque jour rek tey comme li ma la sànq ñu doon nekk ay booy yu dem seen équipe di leen seetaan ay contact ak yëpp parce que ñu ñoo bëgg làmb te tey la mbër sa moromu mbër ku la supérieur rek si moom ngay. am sentiment mm-hmm. comprendre parce que tey ñun jour bu romboon fii nii tey jii nii man du ma dawal jaral dagg sama yite basketteur bu romboon du ma jaral dagg sama yite tey mbër bu ma supérieur féete ma kaw mooy jaar fii ma am gis ko wala ma am envie dem nuyu ko. Hmm. comprendre nga parce que bokk li ñuy yëngu daal. Hmm. loolu kese la mais du dara xëy na làmb moo dem nag ba ñu ne dañu war a bëri affaire yooyu noonu bu taxawee dañuy bëri su taxawul aussi tamit dañuy dem xooli leneen yaa ngi dégg ñoom tam ñu xooli leneen parce que ñun ñëpp benn lañ ndax diggante Grand Dakar Rëbës ñaar moom loolu derby bu yàgg quoi te maanaam dafa jot nag xam nga mu leer quoi dafa jot mu leer quoi loolu nag code la quoi. Hmm, code la waaw loolu code la. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo woo leen waxtaan ak ñoom seen carrière waxtaan ak ñoom li nga xamante ni moom lañ jot a weesu ak li nga xamante ni ci lañ toll moment bi ñoom di di di di profité tamit di am ñoo xamante ni foog ma sant leen. Mm-hmm. parce que ku ci mel ni Khadim Diakhaté ku ci mel ni Cheikh Diaw ku ci mel ni Ibra Faye xam nga ku ci mel ni Balla Diop ku ci mel ni Boyka mooy suñu ko si écrit ñooñu amuñu seen fay. Mm-hmm. dañuy sonn ci booy yi. yi nga xamante ne tamit bëri nañ ku ci mel ne caadre ko seen ay Mamadi ñu ngi leen di encouragé booy ci am ndam ñu leen di félicité xam nga di ñaan yàlla tamit combat écrit yi nga xamante ne com combat yi ñu des ci écrit bi. yàlla suturaal ñu defal ay ndam ñamagul combat am ay combat yàlla suturaal leen may leen ay ndam loolu la ñuy ñaan yàlla parce que écrit bu ndaw lañ yoroon. Mm-hmm. xam nga di sant gars yi nga xamante ne aussi tamit dañuy sonn si ñun bu baax ku ci mel ni. santoon waaw non dafa am ñoom foog ñu nuyu leen ku ci mel ni Baye Ndiaye. Mhm. Baye Ndiaye dama koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal yàlla yàlla yokk ay xewlam yokk ay suturam Baye Ndiaye bu Aziz Alioune Ndiaye dama koy sant bu baax parce que kenn la koo xamante ni ku may jàppale la kuy sonn ci man la wax dëgg yàlla xam nga ñu ma jógee sama combat ak ba léegi tamit xam nga mu may jàppale di ma taxawu ci côté yëpp te sama combat bi aussi tamit jàpp na si kon ñooñu ñun amuñu seen fay. Mhm. yaa ngi dégg ay ku ci mel ni Elimane Gueye Tall bi Serigne Saliou mel ni suñu papa Diop si. ku ci mel ni Popol Douagne Pascal Douagne xam nga ñooñu amuñu seen fay Pascal Bassène ñooñu ay Douagne leen dañuy jàpp ci combat di ci sonn ku ci mel ni Modou Diagne ku ci mel ni Diop Dollar ñooñu dañ ciy sonn bu baax ku ci mel ni Boy Ndiaye ngi états sama combat bi jàpp na si yónnee ma xaalis xam nga ak Omar gi nekk sama benn boy bu nekk Paris yaa ngi dégg ñooñu dañ leen di sant bu baax a baax di leen gërëm boo yi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi yëpp xam ne bu ñu amee combat dañuy cotiser seen monde di ko envoyé yaa ngi dégg dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ñi nga xamante ni tey ku ci mel ni Abou Moussa ku ci mel ni Papis Niang xam nga ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant Dakar Plateau bi bu baax a baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn di sant Cheikh Ahmed Tidiane Ba Messi Cheikh Ba maa ngi koy sant bu baax borom Medina président Ousmane Ndiaye Ousmane Ndiaye mention spéciale moom mooy sama bunt ci Cheikh Ba moo tax ma xamante Cheikh Ba wax dëgg yàlla dama koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfeex ak xam nga waa mouvement ñi mi nekk Médina bi yëpp bàyyiwuñu kenn daal waaw bu ñu limee dañuy juum xam nga mm. di sant sama yaay bu baax di ko ñaanal yàlla aussi tamit mu gudd fan wér gu yaram ba fekkee suñu njëriñ bu baax a baax a baax a gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo di leen dox dig daje ak yeneen mbër di wax kontaan naa ci caat kontaan naa ci double moteur ñoom ñëpp dina jox dig daje ba beneen te dina wax promoteur yi nag nañ gaaw a taxawal lii gannaaw caat bëgg na léegi moo kii nga xamante ni mooy double moto bëgg na ñu taxawal combat bi làmb jëm ca kanam ba beneen yoon wasaare làmb ak jàmmaarloo